waaw non mais sant yàlla ne gàcc ngaalama gaynde yi parce que match bi résultat bi dafa simple gaynde gi la woon ak guerrier bi gaynde bi gagné na guerrier bi parce que ñoom guerrier la ñu ñun gaynde la ñu donc tey gaynde bi moo gagné guerrier bi matchu Sénégal toujours noonu la passion euh, bu doon sunu sago but dina bari mais sport moo mel noonu émotion la angoisse délivrance dernière minute la yàlla indi délivrance bi donc ñu félicité Lions yi félicité Sadio Mané penalty bi rafet na euh, du ñu dugg ci commentaire parce que man bokkuma ci 17 millions d'entraîneurs yi lenn rek moo am solo na réew mi yëpp soudé wu derrière les Lions et te ñuy félicité également le président Macky sal parce que taxawu na leen jox na leen bi te ñaax na leen nee dem ba jeex coupe bi ñu bëgg ñu indi ko yàlla na ko yàlla yombal. amiin tey nag dañu ñëw teew parce que ci sunu stratégie daf ci bokk li nit ñi xewle ñu fekk leen ci noonu la ñu koy defee bu doon ay jàng noonu lañ ko doon def bu doon ay cant bu population yi nekkee ci dara woote dañ leen di wuy si tey ñu wuy si leen nag ak mandarga boo xam ni ndakaaru moo ñëw seet si Zahra Iyane Thiam hmm. di candidatu SICAP diriger liste bi Abdoulaye Diouf Sarr le ministre diriger liste Ndakaaru ñu ànd ceeg moom donc ñëw teew beneen yoon xëy na ci beneen fan zone la ñuy dem ci beneen quartier ànd ak ministre bi comme ni nu koy defee euh, parce que mais lii moo fi nekk te Sénégal yëpp la mobiliser donc yàlla nañ ci yàlla defal ndam du ma dugg nag ci commentaire match bi technicien yi moom duma ci bokk. na na Malick. gis compétition yu mel nii euh, coupe du monde coupe d'Afrique euh, même sax Jeux olympiques football équipe yi nga xam ne dañu soox dès le départ en général ñooy mujj jël ndam li Allemagne noonu la daan def euh, France tamit yàgg na soox di jël di gagné Espagne Cameroun équipe yu bëri dañu soox ba yegg parce que soo sooxee ba yegg début bi na ngay xam lan ngay reprendre defaraat ko ba ba yegg fi nga war a yegg mën nañ ne tactiquement peut-être am na ay ay problème mais l'essentiel c'est la victoire compétition moom da ngay rek loolu moom moo ci ëpp solo comme gagné nañ rek jël nañ ndam li rek nañu continuer supporter leen bu ñu leen supporter ñoom ñu sentir que ne supporter nañ incha allah dinañ fi indi ndam li. incha allah. waaw dañu féliciter euh, madame le ministre candidate euh, euh, à la mairie de Liberté ne lii du gulet xëy na dafa tombe rek Coupe d'Afrique mais du gulet muy boole ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Liberté di leen boole ci li nga xam ne moom moo leen soxal mooy dimbali xale yi ñu nekk ci ASC yeeg yooyu donc loolu benn la dimbali xale yi tamit ci ci xëyu ndaw yi mi ngi ciy yëngu bu baax donc fépp yu fépp fu ndaw ñi di dajee rek euh, dañu gis madame le maire Zahra Iyane Thiam ñëw toog dajale leen euh, ànd ak ñoom ci li nga xam ne ñoo loolu lañ bëgg fi ne nag Sénégal bi yëpp lan lañ bëgg fexe ba ñu indi ndam li indi ndam li nekkuñu fele noonu ca ca Cameroun waaye ah tey day ñu gis fii ñu ngi mel nii ñu ngi woon Cameroun donc loolu yëpp ñu ngi koy euh, lu ko waral euh, madame le maire parce que tàmm na na gis na nii la xale yi bëgg mu fekk leen ci lu ñu bëgg donc dañ ko ci félicité ah ñu ni tamit gis nañ fi macha allah beaucoup d'engouement ànd ak ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci kaw gox bi loolu yow loolu tamit dafay wane ne bëgg na goxam ah ci euh, jongante yu ñu jëm nag képp koo xam ne bëgg na goxam ah dañu wax ne war nañ fexe ba teg ko ci kanamu ci ci ci ci boppu gox bi mu jël mairie bi donc euh, ñi ngi njort tamit waa Liberté ñu fexe ba euh, topp li nga xam ne moom mooy seen njëriñ muy fal Zahra Iyane Thiam keroog ca 23 incha allah Merci. Voilà.